mbette lay doon saa su nekk ñu daal di jàkkaarloo ak yéen tey jii 12 minutes chrono boo leen gisee environnement bi ñu koy defee ngeen xam ne ñu ngi ci rajo bi bien entendu mais nag euh, comme kër gi moom dafa yaatu euh, Leeral FM Leeral TV mais Leeral point net saa su nekk rek dañuy daal di def li nga xam moom mooy surprise tey nag fii la ñuy daal di wàcc ci rajo bi. daal di jagleel suñu gan gi li nga xam moom mooy 12 minutes chrono ci ci rajo bi mais encore une fois nga jàpp leen ne même format bi la ci li nga xamante moom mooy jëm ci euh, waxtaan euh, waxtaan nag euh, ci wàllu politique waxtaan ci wàllu justice tey jii ñoom am gan di Ndiap Lo porte parole bu candidat bi la di maître Moussa Diop naka noonu tamit nekk coordonnateur nationale bu parrainage mbekk mbégte lañ dalal tey c'est vrai que initialement c'était prévu à la télé mais on est là rajo lépp benn kontaan lool ci invitation bi Sangor je pense que c'est la première fois ma ñëw ci leeral point net am mbégte fekk fii équipe bu macha allah bu dynamique ngeen accueil ñu accueillir bu bu mucc ayib effectivement télé bi la mais benn la rek. je hmm. pense que télé bi rajo bi c'est la même chose. Hmm. l'essentiel est que message bi ñu bëgg a jàllale mu jàll. am na mbégte lool pour ñëw wuy si la. macha allah Ndiap Diop je rappelle porte-parole du candidat de maître du candidat la candidature. maître Moussa Diop jamono ji ak nekk tamit coordonnateur national du parrainage bu candidat boobee bu ñu waxee maître Moussa Diop xel yi dafay dem ci li nga xam ne moom mooy mandat de dépôt bi ñu ko def alors la ko waral mooy sortie ba mu defoon est-ce que Ndiab Diop aujourd'hui conseillerez-vous maître Moussa Diop sortie ba mu defoon mu defaat la même chose aujourd'hui waaw xam nga je rappelle que maître Moussa Diop sortie bi mu def mi ngi ko defee ci benn conférence de presse. Euh, à ma qualité de responsable du parrainage ci ban contexte la ko defee mooy comme tous les candidats ginnaaw bi nu paree opération parrainage yi nga xamante ni def nañ ko nombre bi nu soxla woon sénégalais yi pare nañu ko ñu pare nañu ko ba raw objectif bi nu fixé woon c'était normal ñu def conférence de presse remercier sénégalais yi décliner suñu feuille de wax programme bi nga xamante ni moom lañ bëgg a indil yi loolu moo nekkoon contexte historique bi nga xamante ni loolu moo war moo taxoon ñu def conférence de presse maintenant conférence de presse bi aussi bi nu ko defee c'était juste pour sargal sénégalais yi gërëm leen remercier leen par rapport ak candidat maître Moussa Diop bi nu am confiance ci moom ba jox ko seeni parrain muy benn deuxième temps bi c'était quoi le pourquoi la candidature de maître Moussa Diop lan moo tax maître mussa Diop nekkoon candidat ci élection yi mu loolu programme moo koy sous-tendre maanaam programme mooy tax mu mën a justifier sa candidature mu wax programme par rapport ak industrie par rapport ak agriculture par rapport ak ndox bi gratuité bi lim ci wax loolu lépp par rapport ak engagement yi nga xamante ni jël na ko bu nekkee à la magistrature suprême te bokk na ca conseil supérieur de la magistrature mu jóge ci bokk na ci aussi acte bi nga xamante ni moom la maître Moussa waxoon ni moom lay njëkk a teg mooy réconcilier les Sénégalais ci ñan la koy jaar mooy mu génne Ousmane Sonko fa mu nekk tey jii moom mi ngi fekki na Ousmane Sonko. je pense que loolu moo taxoon maître Moussa job jóg. maintenant troisième temps bi c' était quoi c' une manière bu indi ñëw par rapport ak réew mi li fi xew ci xale yi faatu ci xale yi nga xamante ni dañuy nekk ci dañuy dem. di wut loo xamante ni moo gën li nekk ci seen réew alors que ressources naturelles yi permettre na xale yi mën a épanouir fii ci seen réew. ci contexte boobu la maître def conférence bi. Hmm. bi mu defee conférence bi à notre grande surprise ñu xëy le mardi maître Moussa ñu defal ko convocation à la sûreté urbaine. mu wuy ji sûreté urbaine def 48 heures de garde à ñu jël ko def ko mandat de dépôt. Hmm. ba ba léegi parti bi nag. yàqul dara par rapport ak procédure bi nga xamante ni ci la nekk entamé ko muy lépp lu jëm ci wàllu déposer candidature maître Moussa dinañu ñëw ci déposé boobu ak procédure bi nga xamante ne yaa ngi ko wax mais quand on li nga xam moom mooy euh, maanaam contentieux bi nga xamante ne maître Moussa Diop am na ko ak la justice euh, gis nañu li nga xamante moom moo xew ci diggante bi est-ce que réellement certainement vous avez des informations <laughs> supplémentaires yoo xamante ne amuñu ko ci est-ce que maître Moussa Diop a encore une fois confirmé li nga xamante moom mooy kaddu yu mu yëkkati face aux journalistes. waaw maître Moussa boo ko xamee xam nga nit ñi ñi ngi tooñ sax ni mooy Samba Dogota mooy góor boo xamante ni du daw mooy Samba du daw mukk kooku lépp lu mu waxoon a travers sa conférence de presse lu mu waxoon bin ko yóbboo sûreté urbaine journalistes yëpp relaté nañ li maître Moussa a confirmé les mêmes propos propos yamu ca dafa brandir ay preuves par rapport ak li muy wax lan moo koy justifier. est-ce que ça a été le cas face au procureur. loolu la def loolu pour <laughs> yëpp relaté nañ ko presse bi yëpp relaté nañ ko. connaissant maître Moussa Diop. xamoon nañ ne li mu wax. wul dara ci li nga xaman ne moom la wax. jamais de la vie parce que jàpp na ne li mu wax mooy dëgg te li mu wax. sénégalais yi intérêt wu sénégalais yi moo tax mu def ko kon loolu noonu amul lu mu ci daw amul lenn loo xamante ni dina ci regretter parce que on ne peut pas patriote et ne pas des sacrifices pour sa nation pour sa république mais pour sa société aussi. d' nga jàpp ne maître Moussa Diop li mu génn nii bi muy def conférence de presse bi est ce que réellement waxtaan nga waxta en fait xamoon ngeen ne maître Moussa Diop lay wax c' est à dire ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor la communication de maître Moussa Diop est ce que waxtaan nañu ak moom ba xam ne maître Moussa Diop ñëwee révélation yi lay def est ce que bettu leen est ce que tey jii si c' à di ngeen d'accord à ce que mu mu mu defaat ko. waaw xam nga parti politique tout le temps dafa am nu muy doxee mooy lépp loo xamante ni parti bi daf ko war a doxal dafa am ay organe xam nga ñun am nañ le bureau exécutif national muy le benn composé de secrétaires nationaux. tey jii peut-être je kii mooy secrétaire national à la communication muy nooré nii ki ma accompagné keneen yor leneen keneen yor leneen lépp loo xamante ni dafa war a jëm ci ay décision dañuy toog waxtaan ba juboo ci loolu c'est-à-dire conférence de presse bi avant ñu koy def waxtaan nañ ci point yi point yi point yi la ñuy waxtaanee mm. mais point boo xamante ni aussi da ngay wax loo xamante ni daf la naqari ci sa réew par rapport ak ressource notre réew effectivement dinañ ko waxtaanee mais buñ ko waxtaanee aussi maître Moussa Diop ñëw wax ko c'est normal ñun jàppul jàppoonu ñu amoo leen lenn loo leen di regretter ci sortie amul xam nga moom laa la wax léegi dama lan la nit bu nekkee leader nekk patriote bëgg réewam avancé lépp loo xamante ni wax na ko te Sénégal rek ngay gis parce que li ñu jàppee Moussa Diop <laughs> liberté d'expression daf ko encadrer. liberté d'expression mais mais mais attention attention est-ce que liberté d'expression permettre na tey jii. bu ñu bu ñu jéggaandee euh, lu jëm ci wàllu jamaa mais armement yi nga xamante ne mu ngi koy wax ça aussi. Euh, malgré que liberté d'expression mais lu warul la permettre peut-être ngay dem ci li nga moom mooy la sécurité euh, nationale. waaw xam nga dama lay wax nit bu nekkee candidat à l'élection présidentielle. nekk leader d'opinion sénégalais yi di ko déglu mu gis am lu ko naqari ci réewam réew am nga ay droit mais am nga ay devoir droit la devoir am la sax mu taxaw éclairer la lanterne des sénégalais par rapport ak ressources minières yi ndax ni mu war a tegoo tegu na ci yoon gis na ni teguwul mu dénoncé loolu wax ko ko brandir ay preuve am yi mu jàpp ni yii bu ko génnee sénégalais yi kenn yoon du ko ci fekk du ko ci def loolu jarul mandat de dépôt parce que Moussa Diop et un candidat à l'élection présidentielle kooku dëkk ci réew mi du fi jóge mi ngi def li mu war a def war a déposer <laughs> candidature am kooku jarul nga koy def mandat de dépôt et loolu ñun waa ànd gor yi dañuy jàpp ni ça sent de la politique dossier bi on pensait que dossier vraiment judiciaire la mais dossier bi day dem ci dossier vraiment purement politique. d' accord euh, Ndiap bu ñu waxee ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum politique sànq yaa ngi koy wax candidat à la candidature élection présidentielle maître Moussa Diop na euh, juge bu deuxième cabinet bi ngir ñu jox ko ngir mu mën a déposer li nga xam moom mooy caution mais aussi mën a am li nga xam moom moo war ci dossier de candidature am fan la toll. waaw merci. parce que occasion la pour ñu leeralal Sénégalais yi fan la loolu toll. parce que maître Moussa depuis bi ñu ko ak léegi douzième jour mooy tey mooy douzième jour de détention préventive maître Moussa Diop déggoo ñu audience affaire bi instruction lañ ko yóbbu kon Moussa Diop mënagunoo wax ni kon daane nañ ko wala. si chef d'inculpation yi ñu koy toppee bu weesoo loolu amul lenn kon procédure bi nga xamante ni moom la ñuy def ci wàllu élection yi muy le dépôt de sa candidature dara waru koo mën a empêcher dara waru koo mën a entacher loolu moo tax bi nu xoolee ñu jàpp ni procédure mu normal la mu Moussa Diop sunu xaalis cotisation yi nuy def effectivement compte bu muy nekk compte leader politique bi lañ ko def buñ da jëlee suñu xaalis def ko ci compte leader politique bi pour que sunu 30 million mat parce que yooyu yëpp réglé nañ ko réglé sunu parrainage réglé suñu costion ba lépp mucc ayib lenn rek moo ci des mooy procuration boo xamante ni la le trésorier parce que nous sommes une structure bien organisée Maître Moussa bu fi nekkul du teree leneen day dox mais le trésorier pour mu accéder ak ci compte Maître Moussa Diop te banque bi defar na lépp lu ci war defar na tout il suffit tout simplement que Maître Moussa Diop juge bi bàyyi ko te loolu lu banal la loolu loo xamante ni warul poser problème juge bi bàyyi ko mu def signature bi ñu dem entrer dans non fond dem jël suñu chèque yóbbu ko CDC. Hmm. mais on s'est trouvé que maître Moussa Diop depuis boobu ba léegi dañu am problème parce que dafa bind le juge du deuxième cabinet juge bi bind di xaar procureur procureur tontu te procureur mën a am huit jours pour tontu te ñun on a que quarante huit heures. donc dañu bëgg a yóbbu ci forclusion loolu nag moo tax ñu ni dossier bi kon ce n'est plus un dossier judiciaire mais un dossier purement politique. d'accord donc fi mu nekk nii amagul benn signature su ma la déggee amagul benn signature maanaam maître Moussa Diop mënagul def procuration pour ngeen jël xaalis bi yóbbu caution euh, caisse de dépôt et de consignation. mais loolu moo tax ñu koy leeralal Sénégalais yi. maître Moussa Diop am na 30 millions defar na chèque bi ba pare procuration la ñuy xaar procuration bi il faut que Moussa Diop signé ni. maa wax diw mu accéder ci sama compte maa wax diw muy suñ trésorier Omar Traoré pour mu accéder ci compte maître Moussa Diop. chèque bi pare ñu dem déposer ko. léegi puisque puisque loolu amagul on est à moins de quatre jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature est-ce que vous pensez que euh, mbir bi dina sotti dina décanté wu est-ce que si cela. maître Moussa Diop sera candidat à la candidature. mais candidat à la présidentielle. mais loolu su amee ci lii nii ci loo xamante ne lu banaan la lu yomb su amee ba maître Moussa Diop ñu forkuloo candidature am cela veut dire que nous sommes dans une république purement bananière cela veut dire que ni société civile muy les candidats la yi nga xamante ni ñu ngi ci biti ak képp koo xamante ni vraiment tu es épris de justice war nga taxaw dénoncer lii war nga taxaw xeex aux côté de maître Moussa Diop parce que Moussa Diop kenn kenn condamné ko il jouit de ses droits civiques et politiques dara waru koo mën a empêcher candidature bi tegu ci yoon. procédure bi ni teg ci moom ak procédure bi nga xamante ne moom na teg pour mu déposer sa candidature ça n'a rien à hmm. je pense que loolu noonu sa montre que Macky Sall am na droit c'est son droit le plus absolu mu tànn candidat Amadou Ba. oui mais tànn candidat Amadou Ba ne veut pas dire que ñëpp ñu war a bëree ak Amadou Ba. Mm. da nga leen di mettre en prison les candidats sérieux la ñoom ñëpp ñu ngi ci prison bi réew mi ñu ko war a jiite mm. les Moussa Diop. les Bassirou Diomaye Faye parce que candidat la les Ousmane Sonko. boo leen tëjee lan moo leen fa yóbbu c'est pas de la politique c'est c'est ils ont des contentieux avec la justice. du politique bu fekkee am nañ ay euh, contentieux avec la justice. loolu empêché wul seen candidature jàll. nit jóge na prison. nit joge na prison gagné réew. d'accord ça c'est vrai Ndiaye Lo moom moo nekk coordonnateur bu euh, national bu parrainage bu candidat maître Moussa Diop. Porte-parole aussi de Maître Moussa Diop bien entendu candidat à la candidature de la présidentielle de jamono ji xam ngeen dafa am ay jafe-jafe ak yoon loolu nag daañu ko toppal ndax daañu ko jox li nga xam mooy signature boobu mën a dem jëli euh, caution am yóbbu ko ca caisse de dépôt et de consignation ngir mën matal li nga xam mooy dossier de candidature loolu yëpp daañu ko toppal bu ko defee xëy na beneen yoon ñu toogaat ak moom waxtaanaat ci li nga euh, euh, ne moom le candidat en tant que tel on l'a reçu plus de deux on se en tout cas euh, ci suñu ay émission 12 minutes chrono mbokk yi ëllëg ak jàmm.